mu nekk sa kanam donc avec 82 sièges ka topp si ñun sori nañu lool ndax ma nga am dañ ne woon cinquante 56 mais gis ngeen ne waa PDS nangu nañ seen 3 députés yi 3 sièges yi kon jàpp naa ne ñu ngi ci 53 kon différence bi yaakaar naa ne du lu duñ ko xeeb troisième bi tamit gis nañ la mu am. ba ci huitième ba. kon dañuy sant askanu Sénégal ñu waa Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. ndax kat askan boo xam ne. 2012 ba tey ñuy laaj seen i baat di laaj seen i carte ñu ñu koy jox. Mm-hmm. ak ni mu gën a rafetee kooku dañ koy doon lañ doon leen njukkal ñu ñëw ci élection législative yi également bu leen fàtte ne depuis 2012 dañ ko laaj askan ñu jox ñu présidentielle ñu dem élection 2014 tamit askan bi jox ñu. Mm-hmm. ñu dem référendum 2016 askan bi jox ñu. ñu dem élection législative 2017 askanu Sénégal jox ñu ñu dem li nga xam ne mooy deux 2019 présidentielle ay candidats yu bëri taxaw jàkkaarloo la président Macky Sall askan bi falaat ko sur la base de son bilan. ok ñu ñëw fi nga xam ne mooy 2000. 22 22. ñu ne si élection euh, yu yu locales ah, yi. ñu gis ne également tamit askan wi jox ñu majorité bu am solo ñu ñëw ci élection législative yi tamit ñuy def ñu jiitu. naam am na lu bëri loo xam ne xaw na wàññeeku na gis nañu opposition bi def na ay performance mais ay performance opposition tamit n'enlève en rien le fait que ne gis nañu askin wi dañoo jiital te loolu tamit bu ñu ko bu ñu ko xeeb bu ñu ko xeeb ndax am na solo léegi ngeen am amoo leen majorité à l'Assemblée xam nga li ëpp solo xam nga boo demee jogante ji jiitu am nga déjà jiitu nga am nga majorité xam nga boo ne majorité à l'Assemblée nationale tey jii boo xoolee parce que comme j'ai dit hein pak huit coalition ñoo dem mhm. coalition bu ci nekk ku ne xam ne li mu am amul ay intercoalition yooyu yëpp amut parce que on a Wallu on a Yewwi on a les serviteurs on a Benno et cetera et cetera. Mhm. mais y a l'intercoalition loolu nag xam nga loolu tamit. il mhm. faut askan bi ñu leeral ko. au plan juridique officiellement. amul benn coalition bu tudd wàllu yeewi amul ba ñuy dem élection huit coalition ñoo am mhm. donc Benno Bokk Yaakaar wàllu yeewi naatenge buntu bi bokk gis gi bokk gis-gis les serviteurs bu ah, Pape Djibril mhm. et Sénégal mhm. xam nga kon loolu amul kii maintenant ñoom dañu trouver benn compromis seen biir officieusement pour àndandoo voilà mais dañ jàpp ne nag intercoalition officiellement amul kon li ñu war a jàpp mooy que ne Benno moo génn majoritairement ci élection yi moom la askan wi gën a jox seen baat ne ko yow lañu ñu wóolu ba tey Benno jiitu ñeen ñu topp si ginnaaw léegi nag jàngatu bu élection bi askan wi mën naa ne euh, votel nañu kujje mais it am na loo xam ne tey suba rek maa wax ci sama yenn entretien ñun tamit Benno Bokk Yaakaar amaan na ne ñoo gën a yombal opposition bi seen ndam. Ah waaw yombal nga ndam bi aussi parce que jàpp naa ne ne bu doo bu ñu amoon manko gi mës bi nekk suñu diggante. Mhm. xam nga da ngay jël benn nit tabb ko ci benn gox benn département daf ko tête de liste. Mhm. ñu sa des jàpp ne kii bu jàllee mooy yor leadership local. Mhm. loolu indi ay lu ñu wooyee des problème de positionnement. moo tax gëwuma ne man askan bi. ñoo weddi président Macky Sall déedéet bu ngeen seetloo si dans les centres urbains. ñooñu ñoo def vote bi nga xam ne tey mën naa ko tuddee vote sanction de la part même des responsables de benn mais boo demee dans le monde rural. mooy ñoo xam ne ils ont été très reconnaissants mais kon kon jàppoo leen ak askan wi am na lu ko metti ba mu sanctionné régime bi. xam nga nee naa la parce que booy euh, wax ni dafa man ni yéen euh, jàppale jëlewul ci jàngat bu bu bu bu ci ci askan wi. xam nga ñu woote. non xam nga euh, Mass. Mhm. man damay def une analyse froide et rationnelle xam nga nee naa la. Mhm. les grands centres urbains mooy ay Dakaaru Njaay ak ñoom seen xam nga tey bu doon bilan rek président Macky du perte Dakar. du ko perte président yi li mu Dakar ñëpp gis nañu ko lu ne fàng kenn du ko jeex mu def ko ci wàllum infrastructure dem ak dikk bi yomb lool mu def ko ci wàllum économie mu def ko ci wàllu leneen ak leneen def ko ci wàllum euh, santé bi. Mhm. def ko ci wàllum euh, njaboot gi bu doon loolu rek du ñàkk santé urbain yu mag yi. ok mais comme li ma la wax bu bennoo bokk nekkoon benn dañuy gagné les centres urbains. àll bi nga xam ne amul guerre de bi nga xam ne amul ay po leadership local ñoom li président def bilan président dama naan du benn responsable moo war a mën a taxaw ne maa tax ñu am ndam daal le monde rural. Hmm. non le mondi rural a été reconnaissant au président Macky Sall. ok gis nga stratégie politique boobu nga xam ne moom la Senghor amoon Ablaye Wade am ko muy l'encerclement des villes par la campagne mooy jël jël li nga xam ne mondi rural. jagleel leen ay programmes yu am solo. Mhm. des programmes sociaux. ok président de la république dafa defar centre urbain yi mais dafa wane ci monde rural bi leen man ma président Macky Sall je suis pour l'équité territoriale man la président Macky Sall man maay la justicier lépp lu jëm ci wàllum inégalité sociale. Mhm. du ma ci dox. waaw mais ñu jël monde rural boobu noonu. d'accord loolu ngay wax ci niveau centre urbain. loolu am solo ngay wax mais loolu yëpp tey jii ñu gis aussi. Euh, ñu ñu li ñu gis à travers les urnes mooy askan wu décidé yéen a yoroon majorité jox leen majorité. parce que aussi bu ñu wax benn bokk yaakaar ne pas majoritaire à l'Assemblée nationale. waaw dinaa ñëw ci loolu boo boolee boo boo boolee coalition xam nga dinaa ci ñëw. Mhm. xam nga nag euh, dissertation sax da ngay jógee du général ñëw au particulier dëgg donc moo tax ma lay xamal ne la ne du askan wi ñoo ne Macky Sall déedéet xam nga tey le monde rural bi ma lay tuddal nii ñoo def la différence. tey ji bu ñu amee majorité jiitu ñu ran ran bu jub ñu nekk premier c'est le monde rural c'est pas les grands centres urbains te ñooñu dama ne la li waral li waral ñu am ndam bi mooy bilan président muy bilan boo xamee dafa dem ñu jaaxale ko ci PUDC ñoom ñu gis bu baax a baax lañu fekkoon di fekk ay 184 village ñoo koy électrifier en un an président ñëw def électrifier 404 villages par an ñu fekk fi 1098 village électrifiés président indi yéeg ko ba deux mille cinq cent et quelque environ trois mille ñu ñëw ñu gis ne tey ji ak Puma bi programme boobu nga xam ne frontalier bi ñoom ñoo indi ay poste de santé tey bi ñu fi président président li mu fi def ci poste de santé toll na ci ñaata ci trois cent poste de santé indi fa ay centre de santé indi fi neuf hôpitaux. mais feeñu ci résultat yi non mais ah. feeñu amul tax. non masse c' important ñu ngi tox doon doon joxe résultat mais la différence mais. li ñu gis mais mais lan mooy les résultats du monde rural. c' est important xam nga au début yéen presse bi da ngeen xamoon tuuti tuuti jaawale commune ak département xam nga mën nga gañ a commune mais ça c' est des élections départementales. élections yi élections législatives lii ça concerne les départements cest dire que les investis sièges yi c' est pas parce que tu gagnes une commune tu as un siège non tu gagnes un département tu rafles tous les sièges c' est le raw gàddu. àll bi nga xam ne amul guerre de bi nga xam ne amul ay po leadership local ñoom li président def bilan président dama naan du benn responsable moo war a mën a taxaw ne maa tax ñu am ndam daal le monde rural. Hmm. non le monde rural a été reconnaissant au président Macky Sall. ok gis nga stratégie politique boobu nga xam ne moom la Senghor amoon Ablaye Wade am ko muy climat des villes par la campagne mooy jël jël li nga xam ne monde rural. jagleel leen ay programmes yu am solo. des mhm. programmes sociaux. ok président de la république dafa defar centre urbain yi mais dafa wane ci monde rural bi ne leen man ma président Macky Sall je suis pour l'équité territoriale man la président Macky Sall man maay la justicier lépp lu jëm ci wàllum inégal. Mhm. du ma ci dox. waaw mais ñu jël monde rural boobu noonu. d'accord loolu ngay wax ci niveau centre urbain. mais lu am solo ngay wax mais loolu yëpp tey jii ñu gis aussi. Euh, ñu ñu li ñu gis à travers les urnes mooy askan wu décidé yéen a yoroon majorité jox leen majorité. parce que aussi bu ñu wax benn bokk yaakaar ne pas majoritaire à l'Assemblée nationale. waaw dinaa ñëw ci loolu boo boolee boo boo boolee coalition yi ak opposition bi yëpp. waa xam nga dinaa ci ñëw. Mhm. xam nga nag euh, dissertation sax da ngay jógee.